tey soppeb sëriñ Touba walla ngay soppeb doomi borom Touba yi nga jàllale ko ci meneen mbokk jàllale googu nga koy jàllale ci meneen mbokk maa ngi ñaan képp ku ko def yàlla nañ ci dajeeg wax di awaa ijël lazina daamu fi xidmati wa ab lahum maaraamu dafa am gëstu boo xam ne dañ ko doon def ci njabootu sëriñ Touba gi ci doomam yi te sëriñ bi doomam yépp tur yim leen tànnal góor ak jigéen dafa dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu moo ko waxal boppam adxaltu nafsi wa jamihi ahli fi bi afdalil warasil fadli nafsi wa diini suma ahli walwalat wa maskani làkka wa di hatun abat sëñ Abdou tam wax ne koo xam ne ba mu amee taaw Muhammadul Mustafa la ko tudde ba ca keneen toppee Mouhamadul Fadal la ko tuddee ba ca keneen toppee Mouhamadul Lamine la ko tuddee ba ca keneen toppee Mouhamadul Bachir la ko tuddee loolu wane na ne kenn amul ci moom ab cër ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomi borom Tuubaa yi nag seenub lim lu yéeme la ndax juróom-benn fukk lañ ak juróom te loolu boo xoolee tur suñ borom wi ñuy wax Allahu juróom-benn fukk la ak juróom-benn waaye. Bamba Mbàkke tam boo ko xoolee juróom-benn fukk la ak juróom doomi borom Tuubaa yi nag dëkk yi nga xam ne fa lañu tëdd mooy Tuubaa Daaru Alimul Xabiir Mbàkke Bawal Xuru Mbàkke Mbàkke Kajoor Mbampuna Kër Mandumbe Gede Busu Gede Busu nag ci Tuubaa la waaye dafa am ko fa beru moo tax ñu tuddaale ko am na tam ñaari doomi sëriñ bi yoo xam ne ñu bari xamuñ leen ndax sëriñ bi am na ay seex muy sëriñ Assane Mbacke ak sëriñ Ousseynou Mbacke sëriñ Assane Mbacke ak sëriñ Ousseynou Mbacke moom yi seen waajur wu jigéen mu ngi tudd soxna Faati Assane Diop soo demee ci téereb sëñ Moussa Ka bi mu tuddee mat Matlabul Haajaati tudd na fa seen turu waajur tudd fa seeni tur ñoom ñaar am na fu mu wax ne bi ummi naa mañ tuddee faati asana may nu useynu dellu may nu asana ñoom nag dañoo yàgg ndax jiitu nañ géej ga seen waajur tam dafa mujjoon sëriñ bi jox ko sëriñ Bàkke so ba moo jur sax sëriñ Baaxir Buso am na ci kër sëñ Bàkke lu mat fukki bant waaye sëñ Baaxir ci ñiñ ci gën a xam la moo tax ñu tudd aw turam sëriñ Baaxir moom itam mooy waajuru sëriñ Serigne Moustapha Bousso mi nga xam ne mooy jiite ci jumaa yi bu so te lii tam ci moom la ko jële sëriñ bi tam am na doom ju tudd sëri soxna Seyna bu Mbàkke soxna Seyna bu Mbàkke nag moom itam li tax ma koy tudd mooy dama gisul maanaam barabam waaye boo demee ba léegi ci téeréb sëñ Musaa Ka boobu bi muy ñaan ci barkeb doomi borom Tuubaa am na fu mu wax ne ci dara darajaay sayna bu umu kalsuum yàlla na sëriñ bi rafetal suñuy doom kon sox ma soxna sayna Mbàkke moom yi ci doomi borom Tuubaa la nekk gisuma barabam waaye njortu naa ne Mbàkke Kajoor la nekk donte nag barabam gisuma ko waaye loolu laa gën a njortu ci gëstu yi nga xam ne moom laa def su ko defee nag kon ñu limal leen doomi borom Tuubaa ak kenn ku nekk fañ ko denc juróomi doomi sëriñ Touba ñoo nekk ci jumaa ji cheikh Mohamadul Moustapha cheikh Mohamadul Fadal cheikh Abdoul Khader Mbacke cheikh Salihu Mbacke cheikh Mohamadul Mourtada Mbacke benn doomu sëriñ Touba moo nekk daaray cheikh Abdoul Ahad Mbacke benn doomu borom Touba moo nekk ci buntu armel yi soxna May Mbacke Zuhra mooy soxna May Laylatul Xadar benn doomu Serigne tubaab moo nekk daarul Minan muy cheikh Mohamadul Bachir. benn doomu Serigne tubaab moo nekk pencum Serigne bu muy Cheikh bu Mbacké fukki doomi Serigne tubaab ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne ñoo nekk ci penku jumaa ji Cheikh Mamadou Lamine Mbacké di Serigne Baara Cheikh Abdoulahi Borom dër bi Cheikh Ibrahima Mbacké Cheikh Aboubacrine Mbacké Cheikh Mamadou Kabir Mbacké Cheikh Abdou Samad Mbacké soxna Fat Dia Mbacké soxna Assou Gawane Mbacké soxna Mbeen Ngaabu Mbacké soxna Aminatu Mbacke soxna May al-Kubra soxna Mominatu Mbacke soxna Xadijatu Mbacke soxna Xadija mii moog sëñ Abdou Khader ñoo bokk waajuru jigéen soxna Fatimatu Penda Buyo Mbacke soxna Muslimatu Mbacke soxna Marema Kunta Mbacke soxna Ami Cheikh Mbacke soxna Diop Mbacke soxna Fatimatu Mbacke ñooñu ñooy fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji fukki doomi Serigne Touba ak juróom ñoo nekk ndaam daaru alimul xabiir cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Muhammadu Abdullahi Mbacke cheikh Abdul Muhayminu Mbacke cheikh Abdul Baaxi Mbacke cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Aboubacrin Mbacke cheikh Amidun Mbacke cheikh Muhammadu Abdullahi Mbacke cheikh Abdul Xudus Mbacke cheikh Muhammadul Kabir Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna Tahiratu Mbacke soxna Maymunatu Mbacke soxna maskuratu mbakke soxna roqeetu mbakke mooy fukki doomi sëñ tubaa ak juróom yi nekk ndaam ci benn barab lañ nekk ñoom ñëpp fukki doomi sëriñ tubaa ak benn ñoo nekk xuru mbàkke kenn rek moo ci beru fukk yi ñoo bokk benn barab buñ nekk ki beru mooy sëriñ Abdou Salam Mbàkke ñi ci des nag fukk yi mooy cheikh Mamadou Abdoulahi Mbàkke cheikh Abdou Jamil Mbàkke cheikh Abdou Wahab Mbàkke cheikh Abdoul Baaxi Mbàkke soxna Aminatu Mbàkke soxna Salimatu Mbàkke soxna Mariama Mbàkke soxna Muhsinatu Mbàkke soxna Fatimatu Bintu Mbàkke soxna Mariama Mbàkke ñeenti doomi Sëriñ Tuubaa ñoo nekk Mbàkke Bawal Cheikh Mouhamadou Yeddaali Mbàkke ma ngi njaayeen Cheikh Mouhamadou Abdou Khadir Mbàkke mi ngi ci barabu Sëriñ Busoobe ci armeli Busoobe yi Cheikh amadul Kabir Mbàkke ak soxna Fatimatu Mbàkke ñu ngi ci wetu stade bi loolu nag xam naa ñu ngi koy jéggulu waaye foofu tam sëriñ bi ganee jamono lañ wax moo tax sax njabootu Maamoor Jaara borom saam lu baree bari danañ faral di wax ne barabu fowukaay boobu dañ ko faa war a jëlee ndax dafa jege lool fi sëriñ bi ganee jamono kon ñoom foofa lañ nekk. benn doomu sëriñ Touba moo nekk Mbàkke Kajoor boo xam ne gis nañ barabam muy soxna astu Kajoor soxna Sayna bu nag njortu nañ ne fa la nekk waaye leeruñu. waaye ci doomi borom Tuubaa la bokk ñaari doomi Serigne Touba ñoo nekk na Mbampuna na nag mu ngi ci ginnaaw Ndulo soo jógee Mbàkke jëm Ndulo boo rombee Ndulo tuuti boo xoolee sa wetu càmmoñ da gis benn tableau bu ñu bind na soo ko laajtee ñu wan la ko foofa ñaari doomi borom Tuubaa fa nekk muy soxna Umu Kalsum Mbàkke ak soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadija mi itam moog Cheikh Mamadul Basir ñoo bokk soxna Fatima du Maam Eh, benn doomu Serigne Touba moo nekk Kër Mandumbe Kër Mandumbe nag ma ngi ci yoonu Louga dëkk bi ñuy wax Njaañ nag la nit ñi di gën a miin waaye boo fa demee danañ la won dëkk ba benn doomu Serigne Touba moo fa nekk muy Cheikh Mouhamadou Abdoulahi benn doomu Serigne Touba moo nekk Gédé Bousso muy Soxna May Muunatu Mbàkke moom nag ku yàgg la ndax 1914 la gane jamono moo sëñ Abdou Lahad ñoo maase yaayam tam mi ngi tudd Soxna Sayna bu Mbàkke moom sañ Mbàkke Kajoor moo ko jur bi jamono nag eh, sëriñ Touba sédde waajuram wu jigéen sëñ Bàkki Buso muy càmmeñam mu dem fa nag gane ko mu wàcce fa liggéey ñu yëgal ko sëriñ Touba sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofa ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya donte barabam nag eh, yombut la gis waaye ci biir armeel yi lañ ko denc ndax dafa yàgg lool muy soxna May ñaari doomi sëriñ Touba yi des muy Asan ak Useynu te ñu bari xamuñ leen moom itam jëlee naa ci kilifa gu baax a baax a baax mu wax ma ne ñu nga leen denc fas ture waaye loolu dafa jiitu géej gi moo tax ñoom itam gis seeni barab yombut waaye foofa lañu nekk lii mooy juróom-benn fukki leeri sëriñ Touba ak juróom-benn yi nga xam ne def nañu ay gëstu yu leer a leer a leer tudd seeni tur ba pare gis seeni barab ñetti barab képp lañ ci gisul waaye juróom-benn fukki barab ak ñett yépp ku ko bëgg gis mën nañ la ko won ñett rek lañ ci gisul muy. barabu soxna Seynab Mbàkke teewul nag ñu njortu ne ma nga Mbàkke Kajoor barabu sëriñ Asan Mbàkke ak barabu sëriñ Useynu Mbàkke jëlee nañ tam ci kilifa mu wax ne ñu nga Faas Ture waaye dañoo yàgg moo tax bañ fa demee tam gisuñ leen waaye wér na ne ñoom ci njabootu sëriñ bi lañ bokk ndax waxoon naa léegi bayit wi nga xam ne ci la sëriñ Musaa Ka tudd seen waajur ba pare tuddaale leen bi ummi naa mañ tudde faati asana maynu useynu dellu maynu asana te soxna faati asan jóob moomu nga xam ne mooy seen waajur mooy waajuru sëriñ baaxir buso moom sëriñ bàkke buso te soxna soose am na ak sëriñ bàkke lu jege fukki bant ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko lii nag lu tax ñu def ko mooy sëriñ bi njabootam waruñoo réer war nañoo fexe ba xam leen war nañoo fexe tam ba tur yi ci gën a siiw nga xam ne murit yi am pësteef yépp te bëgg njabootu sëriñ bi ñu bari ci ñoom tudde nañ leen ay doom mel ni cheikh Mamadou Sa mel ni cheikh dul Fadal mel ni sëriñ Saalix ak ñeneen ak ñeneen ci ñi nga xam ne toog nañu xalifa ak seeni jigéen ku mel ni soxna May ku mel ni soxna Fadja ñooñu nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax ñi nga xam ne xamuñ leen tam war nañoo fexe ba seeni tur sax fi ngir sëriñ Tuubaa moom lépp laal day jëm kanam rek. di bi di naat bëgg guñ bëgg nag ñu fàttaliku doomi borom tubaay te xam seeni tur loolu moo tax ñu def téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom tubaay te sëriñ tubaa loolu daf ko ñoroon ba tax mu wax ne zurman tuhibbu wa in zatat bika daaru wa xaale min dunihi sahlun wa awhaaru laa yamna annaka buxdun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwahu zawaaru kon ki nga bëgg a ziyaare bu ay montagne doxoon sa distance ak moom tam war ngaa fexe ba jiim ko ziyaare moo tax ñu defar téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom Tuubaa ñu ngi ñaan na képp ku tekkalu ci téere bi wala kàddu yi ba ziyaare doomi borom Tuubaa yi yàlla defal la njéggal te defal ñu ko ci seen barke ak barke moom sëriñ bi am na tam ak ñaan guñ def ci téere bi goo xam ne sëriñ Tuubaa nee na képp ku may ñaanal nag ma jàngal ñaan goo gii moom sëriñ Touba moo ko waxal boppam leeral gi nga xam ne moom lañuy mujj nag ci liggéey bi mooy fukki doom yi sëriñ Touba ak juróom-ñeent ñoom ñoo am ay photo kon li des ci njabootu sëriñ bi ñoom amuñ photo yu ñu leen mën a xàmmee waaye fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo am photo mooy Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Abdoul Ahad Serigne Abdoul Khader Serigne Saliw sëñ baara cheikh mamadul bachir cheikh ibrahim sëñ Chouaïbou sëñ abdou samad sëriñ abdou mbàkke mooy sañ borom dër bi cheikh mamadul murtada mooy fukk ak ñaar ci góor ñi ñi nga xam ne am nañ foto juróom-ñaar ci jigéen ñi ñoo am foto muy soxna may alkubra soxna moomi soxna mbenn gaabu soxna musli soxna ami cheikh soxna may suxra soxna asu gaawaan kon ñooñu ñoo ci am photo bokk yi nag maa ngi ñaan képp koo xam ne jot na audio bi tey soppeeb sëriñ Touba wala muy soppeeb doomi borom Touba yi maa ngi ñaan mu jàllale ko mbokkum taali bi ba mu jot ko ba su fekkee ne munta am téere bi tam ab noppam njabootu sëriñ Touba gépp dugg ci ndax loolu jàpp nañ ne mën naa jur texeeg àddina mën a jur texeeg àllaaxira képp koo xam ne tam jot na audio bi te am lu muy sikki sàkka ci lim bi nu joxe wala turi yi su bëggee jokkoo ak ñun ngir yeneen leeral sunu woowee ci 77 874 39 00 wala mu wooñu ci 76 585 79 67 lépp lu ci bëgg a leerlu danañ ko ko leeral ojo bi itam defuñ ko ngir publicité téere bi waaye dañ koo def rek ngir ñëpp mënuñu jot ci téere bi te audio bi ñëpp mën nañ cee jot waaye képp ku bëgg téere bi itam su jokkoo ak ñun insha allahu taala defar nañ ci lu yaatu yaatu ci ndigalu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mii suñu sëriñ kon ñu ngi ñaan ku jot ci audio bi jàllale ko yal na nga dajeeg wax di awaa ijja lazina daamu fii xidmati wa ablahum maaraamu di sëriñ tubaa ñaan ne képp ku ma liggéeyal suñ borom dana la may li nga bëgg ci àddina may la li nga bëgg ci àllaaxira ku jottali ojo bi yàlla suñu borom jottale loola ci barkeb sëriñ Touba maa ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.